asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi safoo di seetaan salaam Vision ma ñëwaat tey rek ci seen émission kàddu askan bi muy émission bi nga xamante ne dama koy faral di amal saa su nekk fii nii nga xamante ne mooy salaam Vision émission bi nag dara taxu ko jóg lu dul li nga xamante ne moo nekk mbébétu askan bi tey ñoo ngi fii nii Pikine seet ci Adama Adama ñoo ngi lay ziar. yal na yàlla nangu ziar. Adama ginnaaw bu ñu la nuyoo ba pare dañ lay bàyyi nga présenté wu lan mooy sa tey. salaamaaleykum mbooloo maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam man la aadama Adama Traoré marié 2011 di yaayu yaayu ñeenti seex <coughs> di euh, nuyu yéen ñëpp di leen wax ne man ma man ma xaw ma sax lan laa war a wax am maa seex seex ñaari yoon. di ñaan yàlla koo xamante ne mën na maa dimbale ci sama jàng doom yi ak ci seen ci seen yar ci seen yar ak seen jàng. aadama dañoo bëggoon a xam mbébét bi exactement lan la parce que dañoo ne dañ leen di waaj a génnee suba léegi ñu bëggoon a xam lan moo waral lool. waaw dañuy waaj a génne suba fi ñu nekk nii fi ñu nekk nii ci école la école la ñu nekkoon di garder fi la nekk léegi dañuy waaj a génne dañ ñoo jox délai suba la cinq fu mu nekk nii pour génn suba suba suba dina doon lu jafe si ñun parce que du avance bu ñu dajale du dara loo xamante ne dajale na ko pour mën a génn suba diis na trop si ñun. ñu gis ne génn bi dafa nekk loo xamante ne dafa doy waar mais tamit si biir génn boobu dafa am ñoo xamante ne da leen dëkkal fii nii ñu bëggoon a xam mba xam yéen génn wala yow kese yaay génn. man maa dëkk ak sama goro ak samay njëkke ñu ñoo dëkk benn kër famille lañu famille lañu dëkkee. mais principal bi fi nekk nii dafay nañu génn ndax moom dafa soxla fii day defar ñun ñëpp ñoo dëkk ñun ñëpp ñun ñooy génn ñun ñëpp ñun ñoo war a génn parce que ñun ñëpp ñun lañ jox délai suba suba suba la 5 ñun ñëpp kon ñun ñun lañ génneendoo ñun ñoo war a génn te fu nekk nii affaire avance moom fu mu nekk mooy suñu problème. xale yi dañuy jàng ñoom ñëpp. xale yi ñaari seex yi mag yi rek ñooy jàng ñoom ñoo am sept ans ñu ngi soog a dugg primaire ñu si des jànguñu. ana sa jëkkër. sama jëkkër mu ngi fi moom ouvrier la day journaalu rek bu tayee mu am liggéey suba du am liggéey day takkale rek. léegi ma bëggoon a xam bébé yow noo tudd. Abdou Jara. da jàng wala. dangay ngay jàng. ah da ngay jàng. fooy jàngee. école 3. école jàngi. ah loolu ba kon askan bi ñoo ko déggandoo ñoo ko gisandoo tamit aadama mii dafa soxla ndimbal te ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk waa Salam Vision dara taxu ñoo jóg lu dul kàddu askan bi mooy mbébét bi nga xamante ne waa askan bi dañ koo amal léegi tey ñu ngi woon Pikine seet si Adama Adama nee na leen nag ndimbal la soxla ngelaw waa askan bi ñoo leen di ñaan ngeen bàyyee xel Adama Adama soxla na ndimbal ngeen ndimbale ko te yàlla tax lan mooy sa kàddu bu mujj. xanaa di sant yàlla rek ci seet bi ngeen ma seet si fii di leen ñaanal yàlla yal na yàlla mottali seen yéene di leen wax ne soxla naa dimbal trop soxla naa ku ma dimbali ci sama njaboot bi soxla naa ku ma dimbali tam ci sama jàng doom yi loolu moom ku ma amee ku ma ci dimbale yal yàlla fay bu baax jërëjëf. doy na waa trop metti na si xol metti na si gis-gis. nee nañ suba lañ ko war a génnee suba suba suba le 5 donc ngela askan bi maa ngi leen di sàkku ñaan ngeen jàppale kii ni nga xamante ne mooy aadama merci beaucoup et je vous retrouve à la prochaine pour votre émission kàddu askan bi. après témoignage bu aadama bi demoon nañ gisanteeg principal bi nee na accordé na leen fii nii ba fin d'année. donc mbokk yi ñoo ngi leen di ñaan dimbal ki ci kii ni nga xamante ne mooy aadama soxla na ko torop donc ñoo ngi leen di dox dëj ëllëg incha allah.